jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati li nga xamante ne mooy mbégte contentement mais ñu amati mbégte bu baax a baax di dalal suñu papa Père Modou Beye ah, di ko xamante ne tey naa la nag ak lu làmb kenn dootu ko présenté ci réew mi parce que bari na te ay jéego yu baree bari yoo xamante ni tey ñoom ñu ngi koy dox ci li nga xamante mooy ci làmb di xool loo xamante ne mooy du rafet di koy wax tamit ci làmb di doxal toujours boo xoolee seen taxawaay mooy ñu xale yi njëriñoo ci làmb ak avancement làmb mu sax instant saa bu làmb am benn sortie bi ñu def la ñuy ñëw waxtaan si ak ñoom ci lu nga xamante ne tey ci lu am solo gis nañ lundi passé ki nga xamante ne mooy président Macky Sall dalal li nga xamante ne mooy monde lutte ñu dem ci nga xamante ne mooy palais bari nag fan yi démb ak tey constat yi nga xamante ne am na ci ci yenn nit ñi ci yenn nit ñi xam làmb ci yenn mbër yi et cetera ku ne ngi génn di wax sa côté sa point de vue am na ñu rafetlu dem bi am na ñoom rafetlu ñu dem bi am na ñoo xamante ne dañ ne dem bi même bu amoon sax war nañoo waxtaanee lii ak lii di jafe-jafe yu làmb war a dund mais lépp dañ ci waxtaante ak Père Modou Beye mu nekk émission bi am solo per ñu ngi lay nuyu baax te la ziar. maa ngi lay fay. lay fay bu baax. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli sonent bi di sant Serigne bu baax. di sant Mame Cheikh Ibrahima sant suñu sëriñ ba. yal na yàlla yokk leeram muy Cheikh Fall Baye góor. ibnu Cheikh Moustapha Fall di di nekkul ku baax waa di sant bu baax njabootam njabootu axlu paalin gépp di sant suma waajur ndax nit su demee bañ jox ko micro jox ko muy wax ci àdduna Sénégal àdduna di la déglu internet di la déglu kooku éducation la mu ngi sant suñuy waajur di leen ñaanal fañ tëdd yàlla na leen gënal fi ñu jóge te yàlla yërëm leen ci barke Cheikhul Khadim barke maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñi leen fi fekk ñu leen fekk ñëpp parce que waajur dafa am solo di la ñaanal suñu borom yërëm leen te jéggal nuyu bu baax di nuyu nag sa caméraman Babacar di nuyu Aliou bu baax a baax defoon nañ ko fii defaat ko muy actu actu buzz yi nga xam ne site la boo xam ni dañuy ñaan suñu borom barkeel ko waaw te yàlla jàppale la ci li ngay def ndax ñu bari sax ñu ngi may woo waaye dama gànt dama leen gàntal mais yow soo ma wooyee ñu waxtaan ci làmb waxtaan ci réew mi waxtaan ci suñuy doom jeunesse bi nga xam ne làmb ji suñuy doom a ci nekk suñuy sët suñuy jarbaat ñoo ci nekk di yëngu muy suñu cosaan ñun ñoo ko moom jigaar wuñ ko ku nekk am nga si ñun amateur lañu depuis 73 ba léegi ñu ngi si làmb ji di seetaan amul lu ñu xamul ci làmb waaye bu fekkee suñuy doom ak suñuy jarbaat làmbi démb ak làmbi tey nga xam ne làmb la ba léegi rek mais jikko yi bokkuñu bu jikko changé ndax 73 ak 2023 am na différence kon jikko yi bokkuñ mais lamb toujours lamb lay nekk mm-hmm. ndax lamb soo bëggee xam lamb mm-hmm. da ngay laaj lamb saa yoo laajee lamb lamb tontu la mm-hmm. su la lamb tontoo rek nga xam ni lamb mooy dëgg ndax dangay ngay lamb daj léeg nga lamb doo daj kon nag suñu dooma ci nekk lamb am ay jafe-jafe ah. lamb bër problème ndax lamb si coow la commencé si coow lay commencé si coow lay jeexee kon nag dafa am ay problème yu ci nekk du ñu lépp baaxul mais suñu suñu sañoon mu gën a baax ñëpp jariñu kon si loolu la ñuy dox si mm-hmm. làmb wax ci làmb yëpp ci làmb amoon nañuy xew nag mm-hmm. dama lay bàyyi ba nga laajaat ma rek mm-hmm. di dellu si avant may avant may avant may quitté ak yow nag dinaa nuyu association des jeunes amateurs dinaa leen nuyu ak le président Goro Ndoye di nuyu association parce que laa demee woon ci tur association des amateurs de lutte si laa demee woon kon ñu ngi leen sant amateurs yi sant amateurs yëpp sant président Goro Ndoye di sant association des amateurs de lutte de A à Z bàyyiwuñu kenn muy góor ak jigéen. di leen sant bu baax a baax a baax a baax. di leen ñaanal jàmm ndax làmb ji ndaw la. te ndaw yi ñooy mujjee làmb ji. ñun mag ñi dañ leen di gunge rek. di xool lu baax. mais ndaw yi yéen. yéenay mujjee làmb ji kon ba ci kanam ñu ñëwaat ci waxtaan wi rek jërëjëf jërëjëf Abou mm. jërëjëf Père Modou Bey loolu am na solo lool ci li nga xamante ne mooy waxtaan wi ñu ñu commencé ko doore ci li nga xamante ne mooy ah, waxtaan am solo ci association bi nga xamante ne mooy association les ñuy ñaan tamit di siyaare ki nga xamante mooy président Gora Ndoye muy xale boo xamante ni tamit ku am ful ak fayda ci liggéey bi la ku ci am waaw ku am yar nag te ku mun a comprendre aadama tamit ci lu bëree baree bëri waaw ku am yar Gora mm-hmm. nañ ko bàyyi xel c'est un jeune gis nga ñoom ñëpp ay jeunes lañu muy groupe baax muy association des amateurs de lutte muy ngondalu làmb muy association Raay bi FM ñoom ñu yéen yéen les jeunes les jeunes reporters comme yéen yéen mujjee làmb ji kon yéen dañ leen war a couvrir war leen rafet waruñu mujjee pousse bi mu réer ndax dañuy dem bàyyi leen fii kon bu ñu amee association des jeunes xale yi ay doom lañu muy góorandoo jiite leen ñu war ko jox cëram jox ko gëddaam parce que parce bu bu bu leer la dañu affilié wu CNG. dañoo affilié wu CNG am seen récépissé. ba pare di dundal làmb ba pare di tëgg làmb ba pare créer ay promoteur waaw hmm. ñaata promoteur moo nekk ci association bi. Hmm. jëlal Baba Diaw. Baba Diaw waaw. jël jëlal jël jël jëlal Ibra Diouf. waaw moor Mor Diouf. Diouf hmm. Diouf Diouf production. waaw yaa ngi dégg. jël euh, Modou Baye Fall. waaw yaa ngi dégg ñaata promoteur. ñaata promoteur ñoo ci nekk ñaata nit ñoo ci nekk di di dundal làmb ñuy góor ak jigéen gëm làmb di ko dundee te yàquwuñu làmb promoteur bu taxaw jàppale nañ la sa sa sa journée pour mu réussir. kon ñooñu soo amee xale yu mel noonu te yàquñu làmb saa yu lu biyee cher cher dina ko jënd ñëw toog. ba pare di yokk làmb ñooñu ñooñu ñooñu boo leen amee da ngeen war a fonk. kon président Gourou dañ koy encouragé bu baax bu mu découragé benn yoon. ñu ngi ci ginnaawam. yéen yéen ñun yéen yéen ndaw ñi lañuy àndal association des amateurs mooy association boo xam ne moo nekk ci làmb ji. ëpp fi mbooloo. ëpp fi mbooloo wax ma ban ban association moo nekk ci làmb ji bu mel ni association des amateurs dañuy dajaloo dañuy def social. am nañ récépissé. am am nañ compte banque. te social amul képp association ku ci am xewle muy dëj. wala muy ngénte lu mu munti doon dañuy dañuy dañuy dajaloo lu ñu am lépp yónnee la. association bu légal. CNG xam nañu legal na kon nag bu bu mbir amee mhm. ñoom dañ ci war a am cër kenn waru leen ignorer kenn waru leen humilier dañ war a jox cër parce que ñooy ndaw ñi président Macky Sall mhm. ndaw ñi la soxla non ndaw ñi la soxla ndaw ñi la war a waxal jàppale réew mi jàppale jeunesse làmb surtout mbëru làmb yu ndaw yi mhm. ñu bañ leen chantage ñu bañ chantage mbër yi jàppaleen mbër yu ndaw yi parce que Macky Sall mba xale yi la waxal jeunesse bi boo bëggee sa réew jëm kanam da ngay waxal jeunesse bi fépp jeune nekk di yëngu am lu mu am am jom am fulla am fayda gëm réewam am si lu muy yëngu te doxul yow mi ko jiitee di président yër gouvernement bi yor état da ngay gëstu la jeunesse sénégalaise rawatina jeunesse lamb bu ñu bëggee lamb ji am jàmm dañu bàyyi naxante bi dañu bàyyi naxante bi amul naxante da yàq réew waaw loolu am na solo lool ci li nga xamante mooy ci waxtaan wi ñu gis keroog président Macky Sall dalal le monde lutte ñu gis nag am na bari na critique yoo xam ne am na ci ñu bari ñu ngi wax que li nga xamante ne mooy li waroon am ci waxtaan wi lu ñu gënoon a soxla pour président defal ko làmb te ñu xam nañ làmb maanaam góom yi ci ne. feebar yi muy sooxaale dañu ba gars yi dem amuñoom projet bu ñu tegal président. waaw dëgg la ni ko waxee abu noonu la question bi dafa am solo trop question bu pertinente nga joxe. Mm. président de la République mooy président mooy président kullu sénégalais. ñun ñoo ko fal. président ku mu woo nga ñëw. xëy na ki da lay neex nga bañ ñëw. mais président de la république président du Sénégal. président bu mu doon ku mu woo nga ñëw. suñu président woowee ne dama soxla njabootu làmb ndax dégg naa am nañu ay jafe-jafe. Mm. ma waxtaan ak pour jàppale leen ci loolu. Mm. kon ñi ñi jiite kuréel boobu bañ demee dañu war a am fulla ak fayda. wax loo xam ni day avancer làmb mm. par rapport ku nekk nekkal fa sa bopp. loolu dafa garaw président. dafa tabax arène bu 32 milliards. bu président bu tabaxee arène 32 milliards le président Macky Sall. ñu jooy ko ci Senghor amuñu arène. ñu jooy ko ci président Abdou Diouf amuñu arène. ñu jooy ko ci président Ablaye Wade amuñu arène si si si coobere suñu borom si Macky Sall président Macky Sall la ko dogole mu tabaxal ñu arène fii 32 milliards. Mm-hmm. ba mu koy tabax am ñu nekk Pikine ñi bari bari bari nanguwuñu woon. mais arène bi c'était pour la jeunesse sénégalaise. parce que li boo jëlee cent pour cent quatre vingt dix pour cent yëpp ci làmb ji di bëre ay xale lañu. ay jeunes lañu ñaata VIP ñoo fi nekk ñaata bénévolat ñoo fi nekk. VIP boo leen di compter matul dix. matul dix kay ñaata mbër ñoo ciy bëree par par par semaine ñaata xale dix huit ans vingt vingt cinq ans moo de trente trente trente ñooy bëri ci làmb ji. kon làmb jooju jeunesse bi ñoo ko moom. kon bu ñu bu ñu bu ñu président de la république wooyee ci palais bi. Mm. ak lu làmb ñëpp ñëw. Mm. ñi ñi ñi làmb. Mm. li ko tàmbalee président CNG bi ba ci suuf dañu waroon wax luy avancé làmb dëgg la wax jafe-jafe làmb wax ko président mu dégg ko pour mu ñu dimbali. Hmm. ndax président dafa am lu mu bëgg. bu ñu bu ñu fàtte ñu ngi jëm ci élection yi de. président projet la bëgg ñu indi ko. ñu indi ko. président yi dafa bëgg ñu indi ko projet bu leer. ndax dafa jëm ci ay élection te réew mi yëngu na. réew mi nañ ci bàyyi xel bu baax. nañ waxante dëgg bu ñu bëggee Sénégal jëm kanam nañu waxante dëgg réew yëngu na. Hmm. suñu réew la ñu ñoo ko moom. Hmm. fi la ñu juddoo fi la njaboot gi nekk fi la lépp nekk bu ñu génnee àdduna yàlla na yéex fi la ñuy denc te ku nekk yow mi mun ngaa war a nekk mu nekk président ku nekk am nga ci cër kon bu ñu falee ku mel ni président Macky Sall di dox soxlay askan wi te ñoo ko fal président Macky Sall falul boppam ñun ñoo askan wi ñoo ko fal kon bu kon kon bu ñu wooyee ba ñu ñëw fa mu nekk ci këram dina laaj ci li ngeen di yëngu ci làmb ji ci xale yi lan ngeen ci xam dañ ko doon tegal lu leer ndax mi ngi toog ay ministres am. waaw mi ngi mi ngi toog mi ngi toog premier ministre Amadou Ba. mi ngi toog président Matar Ba. Mhm. mi ngi toog benn prix mi ngi toog ay ay ay ministres am. Mhm. kon am na amoon lu mu lu mu bëgg xam parce que ministre de la jeunesse. Mhm. Pape Pape Pape Pape Yoro Ndour. ministre de la jeunesse mi ngi toog. woo ñoom ñëpp la woo ci table bi ñu toog. woo ak lu làmb kon kon du Macky Sall seul mënoon naa ñëw toog rek. ñu jël rapport jox ko mi dafa woo ay seet dafa woo ay ministres yoo xam ne ñoo jeunesse bi ñooy ànd. kon dañ ko waroon wax lu leer. bu jógee bu demee ba nag ah lii mbooloo moom mi gis kat naa faj naa naa jóg seen soxla ndax ñii ñoo ma fal loolu moo doon dëgg au contraire dañoo ñëw ku nekk sa idée nga indi sa sa intérêt moo fa indi. ndax dé déglu nañ discours bi daa seen. olof sax waxul waxul olof de moom idée Isabel Samb boobu moom la waxal. waxul olof te waroon na wax waroon na waroon na jël kàddu ci olof sax tuuti sax bu dee deux minutes sax wax ak lu làmb ndax mag ñaa ngi toog. mais defu ko français la wax pare ci benn Gris Bordeaux moo ñëw jël kàddu te li ñu bëggoon wax lépp naam wax na dëgg mais li ñu bëggoon wax yëpp waxu ko ndax làmb dafa feebar. Ah, wax na ko sax ñoom li ñu am am nañ ko ba pare ñoom Gris wax na dëgg li ñu am am nañ ko ñoom ba pare mais seen rakk. seen rakk lañuy la ñuy sóoraale. du dëgg moom wax na lu leer. Ibo Ngaar yi ñu koy sant. Mhm. Ibo wax na fa lu leer nañ ndax nee na nee na nee na président Macky ne la ñuy wax dëgg. ne la ñii wax dëgg làmb ji dafa bëri problème. problème kese la kon nag bu ñu waxante dëgg ñu am fu ñu la dëkkale te dëgg la yàlla bëgg te dëgg mooy mujj te ay mag la ñu ñun pare nañ ba pare mhm. kon nañu wax dëgg te yàlla tax salle bi li muy fees yëpp y' a plus de 780 personnes mhm. ci biir salle bi mu mhm. ñu si biti te lamb dañu war a am comportement lamb dafa war a am dignité dañu war a am fulaak fayda bu ñu ni ñu mag yi gisee boo boo xool ñu rek du yoon mu ñuy mu ñuy tasaare ay cent mille cent mille cent mille salle bi ba mu ne ba mu ne guddee ngeen fii dig ñu dig ñu ay projet cinq cent cinq cent millions pour les promoteurs dina leen jàppale dina leen jàppale chemi couverture maladie universelle pour ku feebar faju carte yi par année la trois mille cinq cent la te loolu xam nañ ko bu yàgg xam nañ ko bu yàgg indi ñu ay projet ay emploi jox def def quota yi jox jox jox jox jox mbër yi jox jox amateur yi jox jox jox jox jox jox ak lu lamb daal jox dafa ne ay quotas yoo xam ne yëpp ay promesse la c'est bien beau président la def na ay promesse tam nangu na duñ ko weddi mais du mais newul woon nekkul woon noonu am na leen lu doon xaar am na leen lu doon xaar soo demee Pikine amul sécurité alentour lamb ji yëpp daanaka ñu dëkk ci alentour lamb ji yëpp def nañ seen plainte ndax bu làmb tasee su làmb tasee violence bi. agression bi bunt bi. rayante bi jël bi. ñoom du ñoom ci nen la ñuy toog. loolu waroon nañ waroon nañ waroon nañ ko teg sur la table wax ko président. làmb ji. lumière yi leerul. courant stade bi baaxul. courant baaxul. lamp yi da lamp yi tàkkul. sono amuñu sono. stade amul entretien. stade bi lu ci damm nañu. siège yi damm nañu. lépp xale yi yàq nañ ko. lépp ngir manque communication boo xam ne entre entre les leaders. et les sécurité bi may ñu sécurité bi may amuñu yërmande ci xale yi te xale yi dañu war waxtaan ak ñoom dóor baaxul dóor di gaañ baaxul nañu waxtaan ak xale yi te bàyyi dóor bi ci stade bi poste poste de sécurité bi dañuy dóor ñu ngi teg suñu bët te xale yi dañuy ñëw pour supporter foog ñu waxtaan ak xale yi ay nit lañu xale yi ay nit lañu dañuy dégg mais dóor bi métti na gaañante bi métti na ci stade bi ah, kon nag yooyu dafa jëloon waxtaan stade bi amul amul amul amul brigade ci biir miiru stade bi gàtt na amul sécurité fu waay neex tëb jaar dugg arène arène bi mi ngi mel ni ko am vingt ans mi ngi mel ni arène nu vingt ans te yàggul te yooyu yëpp lu ko lu ko lan moo ko lan moo ko sabab manque communication joxantuñ cër ku nekk yaa ngi xool noo jëlee sa noo duufalee sa poste rek ba ñibbi. te te li ma jaaxal stade bi ñu ko taxawee ba léegi stade bi amagul directeur. directeur stade boo xamante ne moom lépp loo xamante ne ci côté stade bi dañ naan kii mooy parce que Bira moom président CNG rek la gérer. Bira stade dañ ko fa dañ Bira ko dañ ko jiital teg ko amul dooley CNG état moo wër a ñëw dooleel Bira. waaw surtout bu ñu waxante dëgg état moo wër a ñëw dooleel Bira. yaa ngi dégg ci discours bara Bira mi ngi mi ngi ñaan mi ngi ñaan président Macky Sall oto. oto oto oto boobu muy ñaan noonu. mënoon na ko ñaan ay bus. waay mënoon na ko ñaan bus. parce que équipe nationale bi amuñu bus. amuñu bus arbitre yi amuñu amuñu. amuñu oto bu leen yóbbu leen yóbbu. arbitre yi ay jakarta lañu yor. arbitre yi ay jakarta lañu ñii ñii buñ bu ñu génnee tata la ñuy jël. Mm-hmm. est-ce que loolu sécurité la. waroon na laaj état état waroon na waroon na laaj président Macky Sall bus boo xam ni. Mm-hmm. bu ñu paree ku nekk personnel lay nekk ñu dugal leen ñu ñibbi. muy muy mu intérêt ñëpp. du dëgg ba pare CNG bi dawul yërmande bu baax te ñu xool nitu làmb yi ngi nitu làmb yi dañ war a xool ràññee leen ñiy dundal làmb ak ñiy dundee làmb dañ leen war a xool bu baax ci làmb jee ndax ndax lii am pale da jéggi na dayoo. da am fu ñu doon xaar. waaw mbër yi mais bañ eggee foofu dañoo gis mbirum fecc ak waaye moo fa ëpp. dama ne la VIP yëpp kenn desul. te mbër yi waroon nañu wax si xasal seen rakk yi ñoom ñëpp. Balla Balla Gaye patron la. waaw Gris patron la. Modou Lo patron la. Eumeu seen patron la mais ñoom li Gris wax sax li Gris wax sax daanaka daa daanaka ko jegewu ñoom Gris leen loolu wax. leneen la doon wax. te réeru am na seen biir ñoo dem ba foofu ku jël kàddu ci biir gars la. lutte simple dañoo lutte simple dañoo xëj dañoo dañoo dañoo siisu. <laughs> président Gora Ndoye dafa siisu gars yi aj ko yaa ngi dégg waa ji jaxate le promoteur le le promoteur de Sidi jaxate dafa siif ñëw mais booy set daanaka dafa passé à côté parce que parce que li ko intéressé woon mooy waxal Macky Sall politique moo ko indi woon. yaa ngi dégg Maxu Mbeng mhm. loolu moo ko indi woon. Moustapha Gueye mhm. ray ñu ñu xam nga en tout cas ja waxuñu feebaru lamb ñoom ñoom ñëw ñëw waxal feebar ñoom dañoo ñëw waxal seen bopp ak ak ak yi mag Sall def c'est un président par force mu def ko ñu ñoo ko fal mais ar mais mais lamb ji waaw lamb ji lamb ji dafa bëri dafa lamb ji dafa bëri lamb ji dafa bëri dafa dafa bëri yoo xam ne kenn munu wax lépp lépp lépp lépp lépp lépp abu yi abu dul wax lamb ji kenn mënul wax lépp lépp abu dañuy nañ joxante cër dañu ngi doon waaw secteur euh, yi nga xamante ne tey ci coté ñu fi ne si sénégalais yi boo xoolee lu ci mel ne orange et cetera ak yeneen ak xamante ne ci côté maanaam ci ñoo xamante ne tey dañoo ay entreprises yu mag Sénégal pour président jàppale leen ñu am ay convention ak ñooñu ñu ñëw dugg ci làmb jàppale làmb pour làmb am sponsor yu doy sëkk ba xale yi sax jugee si kase cent mille francs yi xale bu ci am premier combat nga mën a fayee ko deux cent mille wala loolu moo indi Macky Sall le président Macky Sall ne dina jox promoteur yi 500 millions. pour jàppale leen loolu mooy wax jooju mooy ne problème boobu. bu yàgg la woon parce que warul woon daw. orange warul woon daw. Tigo warul woon daw. dëgg la dafa waroon bokk. waroon bokk port autonome dafa war a bokk. xam nga ñooñu ñëpp ñooñu bu ñu téyewoon làmb ñeent ñeent situation yi ma la wax rek ah, bi national yooyu rek bu dem booy mën see jariñu ndax ndax lii dafay gën a yokk agression di bëre doo doo ci tedd di bëre doo am boo paree di fay ay bor ñu fay la kese cent mille francs mhm. nga dépensé cinq cent mille ñu fay la kese cent mille francs nga dépensé trois cent cinquante mille boo defee infraction ñu dagg ko booy ñëw xol xol xol booy bi ñu yàlla jël ab kii bu laal onze mille francs ah ke ke lu mu yóbbu kooku la vingt trois mille oh. mais xam nga xol mais lan mooy indi loolu dafa métti lan mooy indi loolu c'est erreur kon booy booy dañuy découragé dañuy découragé ñaata licenciés ñoo nekk ci làmb ji ñaata booy ñooy xëy par par année di tag licence te duñu bëre bëri na pourquoi pour pourquoi pourquoi CNG mënu mënu am mënu am infirmerie pourquoi CNG bi mënu am infirmerie pourquoi CNG bi mënu am mënuñu am seen ambulance bopp pourquoi CNG bi mënuñu am seen ambulance bopp pourquoi CNG bi mënu am infirmerie te booy yi blessé dafa bëri maam góor gi Njaay dafa mais loolu sax moo gën a dawloo daw yaram ñëpp si si see see see roulante lañ ko teg. maam góor gi Njaay mm-hmm. nit ku nit ku yàgg si làmb ku baax champion maam góor gi Njaay champion Faga 2 champion Pape Diop Boston mm-hmm. champion booy booy séeréer bu kees ne woon kees nga xam ne bëri naag fa lay yoon te bi may nuyu teg moom ci biir taal bi mm-hmm. Jules Balde mu Jules Balde mu dox suñu ginnaaw mu ne ko xoolal fi Jules Balde fi nga toog tey c'est bu doon dund toog fii Jules yow normalement fee fee ñee toog. yow Jules Balde yow yaa repre yow yaa représenté yow Balde. kon yow waroon toog ci biir mbooloo dañ la waroon cërale xam ne kee donay donay Falaye la. cërale rek. booy séeréer fi mu toog ni du yoon. xoolal xoolal maam Gorgui Ndiaye nu mu mel ndeysaan yaram daw na. bi ñu ko joxee micro bi mu baax bi président yi ñëw jox ko loxo yaram dafa daw nga xam ne yàlla mayul dafa able rek. àdduna yàggul kon kon kon réew mi dañu war a bàyyi xel si ñooñu dañoo war a bàyyi xel si ñooñu bu baax ki fi newoon ci réew mi di jàppale réew mi sëñ Modou Niang. l'action de la l'action l'action <laughs> xam nga kenn du sëñ Modou Niang ku mel ni moom dootul am. ah dañoo soxla nit ñu mel noonu xam ne ay social la ñu dañuy jàppale jeunesse bi jàppale seen doom jàppale làmb ji sëñ Modou Niang dootuñu ko amat mel ni moom kan mooy remplacer sëñ Modou Niang ci lu mel noonu bi bi Abdoulaye daanoo sax la affaire mu xaw wàññeeku mais 20 jours la doon tëgg par bi Abdoulaye nekkee 20 journée 25 journée du dañ. ba rasulilah bañ demee bàqee Touba bi ma ko tiimee bañ ma bañ ma tiimee ba ma tiimee pax mi. taxaw taxaw ci ay tànkam mu leer na kii fi lay fanaan tey mu leer na kii bu doon alal ak oto ak xaalis bu bari ak ay kër du du du du tëdd fii tey nii laa ko waxee man leen gore ngi ni tëdd taalibi sëñ Tuubaa ngi ni tëdd ku goree ngi ni ku maandu ku noppi ku jullite mu ngi ni tey ñu rob fi tey mu fanaan ci biir suuf ku ne woon alal mooy tax mu alal alal du dem wala ay kër kon du dem kon na leen bàyyi ci mel nii te maa ngi tiim pax mi te xam naa lu mu yàgg-yàgg pax moom dama ciy dugg lu mu yàgg-yàgg damay dugg ci foofu kon réew mi ñu ñoo ko bokk ñi nga làmb su làmb suñu làmb ci bëggee dem dañuy bàyyi naa affaire naa féq làmb su suñu bëggee Sénégal bu mu bëggee jàppale suñu suñu réew jàppale askan wi jàppale làmb jàppale njabootu làmb dañuy bàyyi naxante bi bàyyi naa féq te wax dëgg te yàlla tax te jàppale suñu dem jàppale ndaw ñi te jàppale les jeunes amateurs le président Gourou Ndoye ñu jàppale le jeune amateurs te am na cër ci làmb booy boobu oh, waaw booy bu am cër la ci làmb booy bu bëgg làmb bëgg làmb dem booy bu sonn ci làmb kon bu ñu naxante kon association jeune amateur laay wax de message laay lancé nañu gën a nañu gën a dooleel Gourou Ndoye nañu gën a booloo bokk ndey bokk bàyyi ndax ay ndaw ngeen yéen soo gisee moom toog ko tardé ba sooy dem tàng nii sax yow yaa ma ko jaral ndax ndaw ndax yow avenir u làmb nga yow avenir u presse nga man dama leen di suivre Actubuzz site bu am solo la site bu am solo la nañu waxante dëgg bu ñu bëggee réew bi jëm kanam ku nekk li lilay li lay yaa koy liggéey <laughs> ku nekk li lay jëriñ ci làmb yaa koy liggéey mais naxante bi ci làmb ji ak galgal bi ak defante yu ñaaw dafa bari te jaru ko barke maam Cheikh Rafal jaru ko ana ñu fi newoon ana tubaabu joor ana Moussa Diame ana Mayoro Fall ana Mor Fadam ana Boy Bambara ana Papa Kan bu Thiaroye ana ana le Tigre nga xam ne keroog min le 10 décembre 76 uh-huh. ci stade ci stade Demba Diop diggante moom ak Double Less le seigneur des arènes bis boobu kenn du ko fàtte diggante léegi ak Double Less ba léegi verdict bi amuñu ko. lamb yooyu lu am ana 1981 si stade Demba Diop stade Iba Mar Diop diggante Mor Nguer ak Manga 2 kenn du fàtte bis boobu ana le prince des arènes Papa Kane diggante moom ak le seigneur des arènes Double Less si stade Demba Diop bii bis boobu kenn du ko fàtte ana Moussa Diame ana ana ana Moussa Diame ak Mbaye Gueye le Tigre de Fass bi ko Mbaye Gueye daan si Demba Diop kenn dañ kenn dañ ne woon mënu koo daan. ana la Tigre de Fass ana sa ñambur fii làmb lu ne am na fii lu ne fekk nañ ko fii kon làmb ji nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg bu ñu bëggee mu avancé te jàppale jeunesse su làmb te defaraat làmb ji mu jekk taaru ku nekk mën cee jariñu xanaa ku nekk mën ngaa jël sa wërsëg ci làmb te yàqu ku nekk mën ngaa jël sa wërsëg ci ji parce que ay mbokk lañu géej la ay mbokk lañu benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar c'est la culture sénégalaise kon bu ñu kon bu ñu bëggee bu ñu bëggee avancé bu ñu bëggee Sénégal jëm kanam bu ñu bëggee làmb avancé bu ñu bëggee làmb du yàqu dañuy joxante cër waxante dëgg président def na devoiram keroog bi mu ñëwee ba toog ba nuyoo ba kaf ba mbala kaf foo gaa yi ba mu ñu xoolee newul woon yoon mu ñu seddal ay cent mille cent mille paas loolu bokku ci daraja bi mu bi mu tuddee cent mille francs yi kenn kenn antuloon sa sago kenn antu sa sago kon nga xam ne ñëpp xaalis moo indi woon fii dañu amee projet bëgg Sénégal avancé bëgg Sénégal changé bëgg arène bi changé loolu moo ñu indi woon mais du ay du ay cent mille francs ay paas moo tax bi mu duree cent mille francs yi rek kenn antu sa sago coow li bari nañ leen joxante cër te am ngor ah. te xam ni ma gis abu tey mu nekk si nekkul si noonu ma fexe ba mu ñëw si orienté wu si yoon bu baax loolu moo ëpp cent millions ma fekk ma fekk Babacar mii si beneen domaine loo xam ne du wàllu jeunesse du wàllu ndaw parce que ndaw du drogué du yàq boppam du fooye boppam ndaw dafay gëm boppam ndax ëllëg dañ koy soxla ndaw ñooñu si si ngeen bokk ñun si loolu la ñuy dox moo tax ma ni Père Modou Bey régulateur social de la lutte sénégalaise maa ko def sama bopp ndaw ñu ñoo ma ñor. ndaw làmb ñoo ma ñor. société bi ñoo ma ñor parce que fi nga fekk ma toog ku fi ñëw doo fekk fii mosuma fi woo kenn ñun toroxuñu. <laughs> dafa fekk nit dafay maandu. Mm-hmm. nit dafay doylu. nit day gore si li ko yàlla defal. nit day maandu. nit day gore ci li ko yàlla defal. Mm-hmm. Mm-hmm. làmb yi ñu ñoo ko bokk Ababacar ah, sama doom. waxante lu baax waxante lu rafet ci làmb ji ay mbokk lañu. te yéenante jàmm. te bañ ndaxante te jàppale suñu doom ëllëg ñu mën a yor seen bopp ndax ñun dañuy dem. am na solo <laughs> di encouragé bu baax. nga may ma ko ci président Gora waaw di wax association des mm-hmm. yi président Gora Ndoye moom mooy président des mooy avenir u làmb. mooy avenir u làmb ëllëg. Mm-hmm. Gora Ndoye mooy avenir u làmb ëllëg. parce que booy la boo xam ne soxorul. Mm-hmm. xol bi rafet na. te du wax lu ñaaw. te lamb lañ dund ñun lamb lañuy dund waxuma ay yeneen association yi nii rek ñun lamb lañuy gëm ñun lamb lañ gëm lamb lañuy dund. est-ce que am na boo xamante ni du ma la du ma la gis instant. voilà ñun lamb lañ dañu bëgg dañu bëgg lamb avancé dañu bëgg ndaw ñi jariñu dañoo bëgg ndaw ñi jariñu ci lamb xale yi ñu bañ leen santage ñu bañ leen sonal te yërëm leen surtout ñu yërëm suñuy doom ndax ñu jàpp leen coiffé leen moo ko ñu dugg ci gaal yi di dee ci géej gi daf ñuy metti ku nekk sport ba nga nekk ñu bàyyi la jàppale la en tant que ndaw ñu couvrir la jàppale la ministre des sports ñëw dugal ci loxoom ñu jàppale jeunesse bi jàppale jeunesse bi laam loolu mooy dëgg maa ngi jégalu ci kàddu yu baax di nuyu suñu bokk internautes yëpp képp ku ñuy déglu à travers le monde ñu ngi lay nuyu di nuyu diaspora bi lamb la ñu am mooy suñu cosaan nañ ko fonk te joxante cër te bàyyi naxante bi te bàyyi ruube bi ci biir lamb ji amul amul amul sens amul sens maa ngi lu baax ci kàddu yi di leen ñaanal bu baax yàlla suturaal leen ndax ay ndaw yu baax ngeen yàlla sàmm leen barkeel li ngeen def waaw waaw di wax ni président Macky Sall woowoon nañu mais mënoon nañu ko wax leneen luy avancer làmb luy avancer jeunesse bi ndax xale yaa xoolal frontière ñàkk moyen rek ba léegi mi ngi ñàkk mooy du fëree di di di remercier kanj kanj production nga dugalal ma li kanj na ci loxoom bu baax mais yàlla mooy wéral Kandji fàttewul benn Kandji fàttewul benn yoon frontière. diaspora bi. Mhm. muy tol muy Mbaye Toldo. muy Toumani. muy Aboy. Mhm. muy Serigne Ndiour. Mhm. ñoom ñëpp kenn musu fàtte frontière. mais yàlla mooy wéral. maa ngi ñaan ñu jàppale maa ngi ñaan ñu jàppale booy frontière. ni koy jàppale. balaa balaa balaa béy di béy di béy wala wala wala yooyu jëkkul daal te frontière yaayam sonn na trop. barke rasulillahi yaay yi na trop. te nattu yàlla day tegee mais nañ ko jàppale ak lu làmb nañ jàppale booy boobu bu baax a baax a baax a baax di leen kontaane bu baax di kontaan ci ñëpp mhm. di ñaan yàlla jàmm yàlla na Sénégal am jàmm li ñuy jublu muy élection yi ak ak yëngu-yëngu yàlla ko yàlla def teg teg loxo ndax Sénégal réewu jàmm la ndax réewu Alaaji Malick la réew réewu Baye Niass la mhm. réew sëñ Bamba la réew sëñ Ibrahima Fall la réew suñ Fallu la réew suñ Babacar Si kon bu ñu yàq suñu réew nañu xool fa lañu jëm ak xel ak xam-xam te xoolaat suñu réew bu baax te jàppale jeunesse bi vive la vive la jeunesse sénégalaise jërë ngeen jëf jërëjëf jërë ngeen jëf ah suñu papa Père Modou Bey gis ngeen tey waxtaan bi am na solo lool nag tey tey waxtaan bi am na solo lool tey tey tey waxtaan bi waaw yëg naa waxtaan bi trop wax dëgg yàlla am tey waxtaan nañu njëriñu làmb waxtaanee nañ tey njëriñu jeunesse su làmb tamit parce que ñun lii la xaar si suñu li muy jànkonteel ak làmb coono yi am ci làmb ñun lii la ñuy xaar ci nit parce que dañu doomu adama bu la yàlla dénkee kàddu waxal la nga xamante ne mooy njëriñ nit ñi ña demoon keroog nag heure ya problème la ci am mooy maanaam di nga wax boo waxee te wax wax jotul heure wax di wax loo xamut boo waxee ngir sa poste di nga wax loo xamante ne lu neex nit ka nit da wax wax sa diggante yàlla wax diggante ak ñi nga xamante ne mooy ndaw ñi parce que mbër ya fa nekk seen seen wàllu wëy na mm. Gris Bordeaux mbëru cent millions la Balla Gaye Modou Lo et cetera ñeneen ak ñeneen amatuñu leen lu ñuy prouver ci làmb xale yi ndaw yi ne ci làmb nji nit ñi ñëw ay ñoom Moussa Ndoye ay Marley ay Tafa Mbër mm. Tafa Mbër ci sàmm def benn sotti sotti bu am solo loolu la def ci làmb la mm. di wax gars yi nag noonu la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi bu dara xewee il faut ñu génn regarder nit ñi xool na lii ak lii léegi lii lii day tax ëllëg. mais ay bokk lañu sax. waaw ay bokk lañu. waaw ñun ay bokk lañu. réew mi ay bokk lañu. Mhm. ñoo bokk réew mi ay bokk lañu. yow maag yow ñoo ñoo bokk benn maam maag Babacar bi ñoo bokk benn maam. maag Aliou mi ñoo bokk benn maam. kon benn bopp la ñun ñoo bokk ndab li. kenn mënuñu ko mënuñu ko pàccoo. kenn moomu ko. lamb kenn moomu ko. képp kon kon lii li dafa am mbër wax. fu leer la ma déglu naa ko bu baax. fu leer la ko tag kon nañu nañu nañu nañu nañu nañu defaraat suñu toogaay. te defaraat jikko yi li nga wax rafet ne trop abu kontaan naa trop ci li nga wax jërëjëf Babacar kon ba Babacar di la siyaare bu baax ah, di ñaanal Babacar yàlla na yàlla wéral yi di ñaan gars yi yàlla yàlla defal leen tawfiq bu baax baax Babacar mu ngi noonu ñaanal mooy sama cadre moom man rek lay def nag di ñaan jàmm si réew mi di ñaan suñu Pape Modou Gueye yàlla may suñu borom mu fekkee njëriñ lépp parce loolu moo am solo ci àdduna di ñaan mbokk làmb ak lu làmb làmb yàlla def tawfiq làmb jëm ca kanam jour nañu fi des kese yàlla yàlla def ci ay réussite totale yàlla may gars yi li ñu bëgg yëpp di ñaan tam président Macky Sall mi yàlla def ci bopp réew mi yàlla ko yàlla defal jàmm yéen bi mu am ci réew mi yàlla na ko continuer ak xelam ak jàmm ak la comme éducation la waaw bu yaru la dañu wax dëgg nit sax boo nit nit boo ko faralul sax waxal ko jikkoom te président Macky Sall am na lu mu liggéey ci réew mi am na lu mu liggéey ci réew mi te nit ku yaru la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñun balaa mel wuñ ko mais système bi. moo ñu moo ñu neexul. <laughs>